du fukk wala sax ñaar fukk waaye nag fanweer ak ñeenti plainte la rek division spéciale de sécurité jot jëm ci rek ay groupe Facebook groupe yooyee nag ñu taxawal ko ngir rek tasaare lépp lu jëm ci dundu jàmbur waaye tamit ay kàddu yu ñaaw jëm ci ay kilifa yenn saay sax ci ay institution groupe yooyee nag di topp kaa kaay ma dey la leneen na tuuti ñoom nag ñu di ay groupe yoo xam ne ay jigéen ñoo ko taxawal waaye tamit ay jigéen rek ñoo fay dugg ñi nga xam ne nag ñoo doon doxal yi groupe ñu mën caa lim chaise anglaise Ruby Kawees Fallon Carrington ñu doon nag jël ay xibaar jëm ci doomu aadama xibaar ba nag mu nekk lu dëgg wala sax lu ko nekkul ñu di ko rek tasaare fépp ci internet bi ba sax yenn saay presse en ligne bi di ci jot kilifa ya nga xam ne nag jot nañ leen caa lim ji rek. Ciré Clédor Ly nga xam ne nag ab vidéom la ñu rek tasaare fépp ci internet bi waaye tamit Mamadou Lamine Massaly nga xam ne rek xamle woon nañ ni rek dafa rek nekk séropositif ka nga xam ne nag moo di Rokhaya Dabatine moo waxoon li ni mel baleen yoon di déglu nag kii di Rokhaya Dabatine nga xam ne rek bokkoon na ci ñuy doxal groupe Topp Cas nga xam ni nag kii di Khadija Anta Fall moo ko taxawal dëggal na boobule xibaar. boobule groupe nag ñu taxawaloon ko ginnaaw ab xuloo jóge ci membre yi ci ab groupe bu ñu njëkkoon a taxawal enquête ya waaye tamit interrogation police yi xamle na ni rek kii di Roqee Dabatine doon na rek def li ñuy tuddee chantage jëm ci yenn victimes yi jot na tamit ñaari yoon xaalis benn bi di vingt cinq mille beneen bi di quarante mille mu di nag mbir yoo xam ni ka ñu ko jiiñ weddu ko benn yoon bu fekkee ne nag fi ñu toll nii am na ñoo xam ne dañoo daw ña ñu jàppagun di juróomi nit jiiñ nañu ren rek association de malfaiteurs collecte ne à personnel waaye tamit ñu jiñ leen tamit yàq ak ñaañu doomu aadama waaye tamit extorsion jamono ji nag mbir ma mu ngi ci loxo yoon